Euh, benn jour je pense impact laa nekkoon su ma juumul dama yéeg bureau masse rapidement di wàcc pour dem tournée ji rek euh, ma gis ko ma gisee mu taxaw noonu bon pour man dafa am casting quoi te yëguma ko bon ma dem gis suñu directrice de casting ma ne ko euh, dafa am casting mu ne ma non ma ne ko mais waa ji ma gis fee ñu ànd ma ma woon ko mu ne ma non kii technicien la ma ne ko non mënul nekk kii du technicien mu ne ma si technicien la mm-hmm. il a commencé aujourd'hui là affaire bon am na ne ko mais kii il a il a le charisme d'un acteur après ça fait pas tout hein mais je me dis si jamais il joue ce serait top parce que c'est un très bon acteur. et c'est c'est il a il a vraiment ce qu'il faut sur la place. l'expression faciale voilà. bon après ma bàyyi noonu mu seetlu mu dugg ci bi am na ma doon jël noonu et puis moom euh, Ousmane Ousmane Ba donc bàcc ma sàmm mu fekk ma foofu. mu euh, mu ne ma bon dégg na sama ay wax et que vraiment moom il a envie en fait de jouer. parce que nekk na fi modèle il a fait des photos euh, je pense qu'il a défilé si je me si je me trompe pas et euh, franchement ci wax ci waxam ma sentir benn euh, benn humilité nit boo xam ne vraiment bëgg na bëgg na réussir quoi j'ai dit bon pourquoi pas naa tester ce jeu donc bu ñu ko waxee directrice de casting bi on l'a testé sur Ninki Nanka en tant que bon figurant entre griffes parce que ci équipe bu policier yi la bokkoon et bon moo ko xoolee bon comme nous tous hein, on a vu qu'il avait quelque chose Bon, Batch Massamba, le personnage a été créé en cours d'écriture. Et euh, bah, Magis Coty, on lui a donné. Et puis, bon, ça a donné le résultat que tout le monde a vu, quoi. Je pense en, en quelques cas, jours, je ne sais pas, Narmos Nagis, acteur Boudefli, En quelques jours, genre, je pense un ou deux épisodes, il a eu un buzz pas croyable, <laughs> c'est intéressant son histoire man keroog bi ma ne technicien yi avancé leen mu avancé ci la. après on m'a pris derrière Mansour ne ma pourtant booy bi technicien la wala Marodi la. xam nga Mansour mu ne ko mais kii technicien la oui technicien la. mais Marodi la nekk technicien la. mais il est cool il parle pas. il, parle bien il est mystérieux et puis. en fait li li tax sax mu gën a facile pour mu interpréter rôle Bathie Massamba c'est que euh, da ko niroo ci lu bëri. Mhm. ci lu bëri moo tax bi ñuy Bathie Massamba à la à base benn personnage bu xaw a soxor tuuti la waroon nekk. mais après dañ ko modifier pour les besoins de l'écriture on trouvait que c'était plus intéressant mu mu mel comme ni ñu ko mujjee def et euh, man plus ñu doon avancer ci caractérisation sama xel di dem ci moom parce que je me suis dit am na lu mu xaw a niroog moom donc du coup après bon je me suis euh, j'ai fait un peu de facilité parce que même ci euh, colin bi quoi c'est je, je suis dit damay jël li li Ousmane di joxe rek ma jox ko personnage bi Ah. léegi Marodi seen production yi parce que gis naa keroog bi ngeen di terminer saison Karma yi ngeen lancé beneen série bu tudd Emprise euh, série yi est-ce que mën nañ leen produire capacité boobu am ngeen ko produire deux séries en même temps parce que des fois acteurs yi wala actrices yi dañuy entremêlé ci série bi dañu nekk ci série bi euh, loolu est-ce que mën na nekk pendant que série bi di daw beneen série bi di daw ngeen di produire fii di produire fii y a possibilité de faire ça Oui, oui bien sûr. Euh, je pense, euh, je pense le plus qu'on a fait, euh, je pense qu'on avait quatre ou cinq séries qu'on était en train de produire en même temps. Hmm. Donc voilà, on a, on a l'équipe technique qu'il faut, on a l'équipe de création qu'il faut aussi. Les décors, bon, c'est pas, c'est pas facile, hein. Yombul quoi. Ouais. Yombul, surtout période bi ñu nekk nii. Euh, ci euh, contexte Covid bi euh, du yomb am décor mais macha allah quoi. parce que boo xasee ba jël kër diw. foofu mooy kër diw foofu mooy kër diw te mën nga dawal ba ci yàgg gars yi commencé tiit parce que xam nga gars yi dañ la naan ok ñëw signé contrat ngeen waxtaan et pourtant même ci waxtaan da nga leen di wax lépp ah. mais ngeen dem ba ci biir ñu gis nit nit ñu bëri yenn heures yi affaire yooyu ñu commencé tiit après bon am na ci ñoo xam ne dañuy def machine arrière en pleine production mais bon tu peux pas les même s'ils ont signé un contrat il faut rester élégant quoi donc tu peux forcément les poursuivre ou genre de choses ngeen di tourner tournage bi commencé ba si digg bi mu rocceeku mais comment vous faites pour rectifier le le tir. ça nous est arrivé même cas ma saison une épisode. waaw. <laughs> parce que foo raccord de ciy gaaw a. <laughs> mais bon da nga koy justifier ci biir euh, ci biir écriture bi souvent dañuy waxtaan ak. Euh, euh, ak borom kër gi expliqué ko ne ko y' a pas de souci mais daf ñuy may un certain temps pour ñu mën a mën ñu mën a justifier changement bi Euh, c'est c'est c'est malheureux mais bon c'est c'est comme ça. su amee même acteur bu bu réew wala boo xam ne day tardé tout le temps wala buy indi dama am problème ordonnance dama da ngeen koy rey ci film bi. non dafa war a dee. non si si. non non non pas du tout dee nga ci film bi <laughs> par exemple. acteur boo xam ne comme Pape Sidi la waaw non sama gel bi moo ma waxoon sama yaay dafa feebar dawkatu liggéey bëgg lu yomb ta fu ñu la fekk yaa ngi wax waxu xaalis. réalisateur bi dafay changer. scénario bi daal ne kii dafa war a décédé. non yow da da lay ba fi yem rek. <laughs> Euh, El Hadj vous directeur de la création de Marodi. Euh, vous avez débuté dans la série Golden. ah bon il est le directeur de la création de Marodi. ñu gis la dans la série Golden en tant que réalisateur en tant que scénariste aussi euh, Golden je peux dire que ni moo révolutionné aujourd'hui Marodi parce que Golden c'était le très haut niveau. l'acteur principal jouait très bien, il joue très bien. L'actrice principale aussi, Mange, elle joue bien. ñu gis la Golden nga gérer direction artistique bi yor réalisation bi yor scénario bi de Golden à Karma aujourd'hui ñu gis tout le temps El projet bu mu nekk rek day am benn day benn qualité c'est quoi le secret de El <laughs> Euh, ouh je sais pas <laughs> liggéey rek liggéey rek job et euh, jox euh, jox liggéey a xam quoi c'est-à-dire parce que liggéey boo gis rek dafa am loo xam ne da ko laaj et puis bon y a des choses qui mentent pas quoi am na am na façon boo xam ne boo ko liggéeyee boo ko melet sa liggéey rek bon forcément ça paie donc mhm. moi je dirais que c'est top sa passion sérieux ci ah neex liggéeyal et puis surtout xam-xam li ngay def quoi. Mhm. parce que bon réalisation c'est pas du tâtonnement da il faut nga xam vraiment li def il faut nga xam à chaque fois soo duggee ci biir plateau bi rek. foog nga bi foog nga xam say acteur foog nga xam yan genre acteur ngay liggéeyal bi foog nga xam ñan ñoo ci nekk ak nan lañ mel parce que bon on aura beau être des techniciens des acteurs et tout mais ay nit lañ avant tout c'est-à-dire que c'est une aventure humaine mhm. c'est la partie la plus importante ñu bëri duñ ko wax mais c'est ay nit yu ñu boole la. Mhm. donc da ngeen di pendant des mois vous bossez ensemble jikko yi day génn est-ce que tu vois gars yi dañuy mer gars yi dañuy sonn gars dañuy am empêchement mais loolu yëpp en fait c'est humainement da ngeen ko war a gérer. donc c'est la partie la plus importante te man moom laa gën a jox euh, importance man sama mhm. liggéey à part le l'aspect est-ce que mën nga ñëwaat un peu sa parcours. <coughs> parce que avant avant nga ñëw Marodi def nga ay boîtes. en tant que directeur artistique en tant Euh, en tant que directeur artistique. Mhm. Ouais, j'ai euh, j'ai commencé avec euh, Makan. Moi, je suis un pur produit de la publicité moom mhm. noonu laa koy <laughs> waxee à chaque fois voilà j'ai commencé avec Makan Dakar et euh, à Makan bon j'étais j'ai bossé sur euh, j'ai bossé pour des marques comme Orange comme Sanofi euh, BHS. Sanofi maanaam comprimé. <laughs> voilà ak yeneen ak yeneen voilà donc j'ai fait cinq ans à Makan et puis je suis allé à Patisen. Patisen ma def cinquante cinq ans euh, je bossais même chose ah c'était directeur. ñaata at nga euh, c'est ma troisième année là. dese na la deux ans. est-ce que xam nga <laughs> est-ce que boîte cinq ans la yor rek fu mu dem def fa cinq ans mu déménagé moom moo dugal Adja ci cinéma. Adja man sama Adja. waaw ah, Kesha. sama Adja c'est depuis Makan. c'est depuis Makan on était collègue à Makan et puis bi ñuy liggéey euh, à Patisen. Euh, on a on a on a été contacté par Marodi ils ont eu l'idée de de créer cette série là Adja euh, c'était la première fois man may gis waa Marodi ah dama doon dégg Pod et Marichou Pod et Marichou donc euh, bi ma bi ñu rencontré équipe bi ñu proposé ñu concept Adja bi après gars yi lancé wu ci casting donc ils nous ont envoyé des propositions ñu xool propositions elles étaient bien donc euh, en fait à Patisen Kesha elle a deux amis yu fa doon liggéey muy man ak Aïssatou Aïssatou Sané. Et euh, bah, on a pensé, euh, moi j'ai pensé directement à Kesha. donc waaw lu tax ngeen arrêté kii production Adja bi xanaa affaire kii bi la affaire booy yi. non non ça n'a rien à voir. ah non ça n'a rien à voir. c'est sûr ça n'a rien à voir oui ça n'a ça n'a rien à voir. on se pose des questions ah, affaire xam nga Adja Adja Patisen moo ko moom. waaw ah. voilà Adja c'est c'est c'est une c'est c'est une production de euh, de Marodi hein mais c'est c'est commandé en fait par par, euh, par Patisen donc. Patisen bon c'est de la euh, publicité quoi. c'est ça c'est c'est un, c'est une série commerciale quoi. Mmh. c'est une série commerciale qui a eu son succès. mais euh, bon bu taxawee rek c'est c'est c'est pour autre chose hein. donc je te euh, suis hein il te fait il te reste deux ans à Marodi. <laughs> aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a motivé à faire le cinéma. Euh, Lamine day insister ci question bi yi de. <laughs> qu'est-ce que vous a motivé à faire le cinéma parce que kanam gi takk ay loolu itam ol gi Lamine suñ la noqee. <laughs> Papsidi. day dangay sois sérieux. wala bi. non non Lamine Lamine il est sérieux. non je te jure vas-y vas-y bon Zoumaté. <laughs> bon qu'est-ce qui m'a motivé c'est ma passion hein. c'est ma passion dafa nekk loo xam ne dama ko bëgg rek. et puis surtout depuis tout petit hein euh, j'ai j'ai eu beaucoup d'influence sama pap da daan il travaille aux États-Unis donc da doon yónnee tout le temps ay cassettes ay ay VHS la woon quoi. donc ay cassette yoo xam ne c'était en anglais. Mhm. donc man noonu laa ko doon seetaanee je comprenais pas anglais mais dama ko doon seetaan noonu mooy film indo yi anglais yi affaire yooyu. film indo ba mu def intervalle a nelaw Exactement, ay deux deux intervalles yooyu. <laughs> mais mais mais mais y a y a une question qui qui qui gravite autour du cinéma sénégalais et c'est on ne peut pas en parler sans pour autant parler de de ça si on veut vraiment parler de l'actualité du cinéma sénégalais. Mm. qui traverse des périodes assez difficiles par rapport à la justice je veux parler de la production de Sakho et Mangane. Mm. mais d'abord euh, les séries Emprise et euh, Karma sont des productions de Canal. non c'est pas Canal qui les a financées. Non, ce sont des, euh, ce sont des productions de Marodi. De Marodi, oui. mais qui passent sur les bouquets de Canal comme sous Yeuf. Euh... Oui, qui peuvent, euh, qui peuvent être distribués plus tard après par, euh, par Canal. Alors, comment trouvez-vous, vous, en tant que... Parce que quand on voit N, on sait que c'est une production de Netflix. Mm -hmm. Amazon, c'est une production de, de la série, elle est produite par Amazon. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand on voit production Canal. Mm -hmm. On sait que c'est Canal qui a investi pour la production. Et aujourd'hui, la série Saho et Mangan. Mm -hmm. Vous avez une opinion, euh, un avis sur la, sur la question <laughs> <laughs> par rapport à que la décision de la justice Bon, euh, je pense qu'il va être super maladroit de ma part, en fait, de forcément parler de ça. Parce mhm. que bon, vous, en, vous, vous l'avez dit vous-même, hein, on, on, travaille beaucoup avec, euh, euh, avec Canal, mais euh, MAS, MAS est un, MASS, c'est un, c'est un grand frère. Hein. C'est un grand frère, c'est un gars que avec qui j'ai bossé quand j'étais à Macan. Mm -hmm. On a énormément discuté euh, de, de, cette chose-là, mm -hmm. des fois sur Clubhouse et parfois euh, sur euh, Messenger rapidement. Donc lui, il connaît mon opinion dessus, donc euh, je eh, préfère pour l'instant que lui connaisse mon que opinion. Tu partages ça avec nous. bon c'est comme j'ai dit. ça va être on dirait nous. Mhm. le commun des mortels on se mhm. dit que injustice mu ngi dal ci doomu Sénégal le monde du cinéma fait comme si. bokkuñu ci. Mhm. bu dara dawee ba laal leen. mbaa bu dara teqee leen. est-ce que du ñu soxla solidariser wu. Euh, fekk ne tout à fait euh, tout à fait masse non mais tout à fait tout à fait tout à fait non mais euh, moi je pense que toute forme d'injustice en fait doit être punie ça c'est clair toute forme d'injustice après euh, c'est euh, c'est quelqu'un koo xam ne dugg na en justice ah actuellement il est en litige donc ak ñoom et je pense que yoon bon ne s'est pas encore forcément prononcé dessus donc euh, ñu ngi ñu ngi xaar quoi. ñu ngi mm-hmm. xaar je pense que il a il a parlé de de de beaucoup de choses qui. forcément révolte, hein, mm -hmm. parce que même en tant que créatif, quand tu te mets un peu à sa place, tu te dis, hey, si c'était si c'était moi, ça aurait, ça aurait voilà, été moi, voilà, ouais. c'est euh, assez difficile, mais euh, pour moi, toute chose a son temps, mm -hmm. toute chose a son temps. Il a pour l'instant. En tout cas, il a, il a le soutien. Mm -hmm. Oui, il a mon soutien. Il a le soutien, je pense, de tous les créatifs du Sénégal. Et maintenant, par rapport aux prises de position, etc., bon, nous sommes quand même des personnes qui... Euh, on travaille en fait avec, euh, avec tout le monde, l'Igni cette année. Donc, euh, il faut être assez prudent. Ça n'a rien en fait de se désolidariser, mais c'est par rapport en fait à euh, prendre en compte en fait plusieurs paramètres mais euh, il est je suis de tout cœur avec lui. Mhm. je suis de tout cœur avec euh, la justice avec euh, li nga xam ne moom mooy yoon. donc bu fekkee ne dañ ko tooñ il faudrait que ce tort-là il soit réparé. Mhm. il soit réparé parce que c'est un créatif. pas mhm. parce que il est sénégalais et que Canal est une grande boîte mais il faudrait que justice soit rendue. il faudrait que ce soit vraiment juste quoi donc il, je suis tout cœur avec lui quoi. parce que si jamais ça arrivait à quelqu'un du cinéma sénégalais. Euh, on ne sait jamais. parce que boo boo xeebee daay mën na lakk sa sa kër mën na lakk say sër. Hmm. boo xeebee toq deret mën naa tilimal këllu meew. Hmm. changer couleur ba euh, loolu wolof a koy lépp de. <laughs> wolof a koy lépp mais man sama sama plastique bi. waaw ban rôle la mën a jox. rôle rôle dëkk. mais sànq rek yaa ngi ko <laughs> gisul benn rôle. rôle dëgg lay dee sëriñ nii xam nga. maanaam casting noonu ministre nii xam sëriñ wala ministre. da lay nax. yow Karim ma bàyyi sama waajee sama waajee wala kaw benn bande de copains. mu nekk si benn genre booy boo xam ne daf ñuy tànnal. moom chef de bande bi moom chef de bande bi. Lamine. Euh, quelle est la particularité de Karma. par rapport aux autres séries euh, Bon, son histoire. Je vais dire son histoire. Mm -hmm. Mon karma, c'est parti d'un roman. C'est parti d'une écriture de cendre. Mon que chronique, ça a eu son, son, succès, ça a eu son, son public. Donc, Nini Bougonenko. Donc, euh, Binyukai présenté, euh, Mas, donc, qui est notre euh, patron, bon, Bimour, lire l'histoire, oui. moom il a c'est c'est quelqu'un qu'il faut euh, qu'il faut vraiment féliciter parce qu'il est vraiment très il a fort, du flair, voilà, ouais. il a le flair quoi. Mm -hmm. Donc quand il a regardé euh, il a lu la chronique, il a senti le potentiel direct hein, parce que euh, les histoires elles ne sont pas elles sont pas communes même si les thèmes abordés ne sont pas forcément nouveaux, mais ce n'est pas ça qui fait qu'une histoire est différente par rapport à l'autre. Parce que mën nga am benn thème mais ta façon de l'aborder, ta façon de de la raconter, elle est complètement différente. Donc c'est ça en fait qui fait que qu'un film en fait va se différencier par rapport à un autre. Et Karma, je pense, sa particularité c'était ça. C'est mm. ces personnages ils sont très riches. Euh, les thèmes ils sont pas. xale yu mool ngeen casting de. <laughs> man des fois dama siy xool sax ma ne téema see jàpp la du mu waay. <laughs> non mais il y a beaucoup de personnes comme par exemple les mecs comme moi on regarde Karma parce que boy yi dañ moola. Ah. <laughs> je jure ah, il faut pas changer les casting des boy ah. ba pare gàll yi dañ ñoo boy xoolal xoolal Modou Pertaw moom. Euh, Pape il y a Thierno Diagne Ba mhm. c'est un expert en industrie culturelle mhm. qui dit que vous êtes en ce moment l'un des meilleurs réalisateurs audiovisuels du Sénégal waaw qu'est-ce que cela vous fait <laughs> waaw <laughs> je sais pas je sais pas si je me moi je je me serais qualifié comme ça mais euh, voilà c'est c'est ça fait plaisir ça fait plaisir donc euh, surtout venant d'un de monsieur comme euh, comme Thierno parce que Thierno nee na Euh, li ko gën a séduire ci série bi mooy xaritoo jigéen bi nga wane ni ba léegi ay jigéen ay copines mën nañ ànd dans la sincérité parce que booy xool ñoom May Ndeye Marie Virginie Amiléa dañu suudew mhm. dañu sincère woon seen biir mhm. ci moom yi bu ci nekk di ngay gis sa morom dina ànd ak yow gunge la accompagner la donc nee na moom loolu moo ko gën a séduire ci série bi parce que actuellement amitié entre jigéen bon c'est pas sincère bëri na hypocrisie bëri na ay affaires yoo xamante ni. loolu la nit ñi wax loolu la ah. nit ñi euh, remarqué en tout cas loolu mooy génn ci suñu ci ci suñuy wax quoi que ñaari jigéen wala groupe bu jigéen amitié entre jigéen sincère wala affaire mais je pense que c'est la même chose ak amitié góor ah c'est la même chose c'est juste que ça répond aux mêmes règles c'est-à-dire que boo leen nekk ay xarit il faut que mu dëggu. il faut qu'il y ait beaucoup de franchise donc euh, pense que loolu bu ci amee bu nekk xaritu jigéen wala xaritu góor rek sa va forcément marché man perso sama analyse man perso analyse bi may def personnellement mooy mm, man li ma gën a séduire ci série bi mooy mm, aspect diine bi. diine tout le yaa ngi wane ni di véhiculer ay message que nit da nga war a pratiquer sa religion mooy religion boo mën a bokk. Mm. parce que épisode bu nekk dinañ gis même bu dee benn acteur dina toog ci si jaada. dinañ dinañ gis aussi tamit en famille nit ñi dinañ toog en famille papa waxtaan ak doom doom waxtaan ak papa ba la preuve mooy dernière euh, épisode bi Boris et son papa. Mm-hmm. mu ne ko wax ma cinq caractéristiques yu tax nga ne da nga war a jël soxna. Mm-hmm. donc foofu noonu vous avez lancé un message très très fort man personnellement man. aspect yooyu noonu moo tax man ma apprécier série bi franchement waaw super super macha allah important booy booy booy def bind série boo koy réaliser da nga koy def avec des codes de société c'est bu fekkee c'est une histoire qui sénégalaise il faut nga xool par rapport au code de la société sénégalaise lan moo lan moo ci gën a génn et ñun dine bon dafa bokk ci ñun quoi mm-hmm. ok il y a il y la culture il la famille donc tout ça c'est super important cocon familial exactement boo xoolee ci biir karma euh, les parents, ils sont super présents. Mm -hmm. C'est-à-dire, ça a beau être euh, une série euh, jeune avec euh, euh voilà, des, des, jeunes super modernes, ils appellent un peu à la liberté. Nous, ils ne sont pas d'accord, mais moi, il fait. Tu vois mais la famille est super importante et à chaque fois, ils reviennent un peu à ça. C'est la même chose avec Ami. revient à la famille ami euh, Lamine et May leur histoire d'amour euh, nekk ensemble pas nekk ensemble war a war a bañ a juboo la famille a joué un rôle les parents mhm. donc euh, c'est c'est c'est des choses qui répondent juste à des codes mhm. qui sont dans la série c'est des jeunes yu am moyen bu leen neexoon génn seen kër dem mais dañu toog comme le cas de Majib dafa toog këram ak ay parents am mhm. Lamine aussi tamit pareil Pape Sidi avant de terminer on va aller découvrir El Hadj ci beneen facette Hmm? waaw. ñu découvrir nag ak moom en tant que réalisateur. léegi dañ koy dem découvrir ci beneen facette. Euh, Grégoire bu fekkee élément bi pare na. nga may ma ko. ñu découvrir suñu invité bi ci beneen facette. Bougar Ba. <laughs> Bougar. Vous avez entendu Maître Ndoye. Et c'est malheureux de vous le dire, mais elle raison. Si aujourd'hui ils arrivent à prouver que Monsieur Kébé est le père biologique d'Anna Eva. Avec tous les éléments qui pèsent contre vous, vous allez perdre la garde de votre fille. Qu'est-ce que je peux faire pour garder Anna Eva sama doom la man la yàgg nekkal man la xam mënuma ko bàyyi mu dem ak papaam. Écoutez, Yéen ni je le comprends je pense que boo mënti toog waxal.

war a réaliser séquence yow war ko jouer nga nekk acteur bi très rapidement. c'est c'est c'est ça ça c'est un peu la même chose c'est un peu la même chose da ngay jouer dem xool sa retour bi ndax dox na wala doxul après bon c'est plus facile boo amee beneen réalisateur souvent mais man jour bi par exemple euh, euh, affaire au juge bi je l'ai je par euh, par accident hein, parce que dañu amoon benn casting waa ji waroon ñëw. ñëwul xam nga rek affaire de sénégalais waa ji ñu woo ko mu ne ñu. maa ngi nii di ñëw ñu woo ko cinq minutes plus tard maa ngi ci yoon bi dafa amu embouteillage trente minutes plus tard waa ba bañ jël suñuy appel finalement ñu woowaat ko cinq minutes un peu plus tard ma ne gars yi bon la moo xew ñu woo ko waa ji ne ñu finalement en fait musul quitter këram. billaahi ah, mu ne këram dafa am empêchement daf foog ne dina quitter affaire yooyu noonu. c'est tout moi quand tu m'appelles je te dis maa ngi si jàddu koñ bi. boobu génn gu ma sama lal. merci. <laughs> le mot que. y'en a beaucoup. waaw projet yi ah. moom bëri na bëri na trop mu ngi ñëw incha allah et bon euh, coach leen Marodi rek comme d'habitude chaque euh, chaque année rek ak suñu suñu ay surprise et puis am na am na yeneen ñuy yeneen ñuy ñëw coach leen Emprise Emprise c'est c'est c'est très bien Thiandoum et Cheikh ils ont fait un excellent eh, travail. Thiandoum c'est lui qui a réalisé le premier numéro de Aoumbed. Thian Thian et Cheikh Diallo. <laughs> et Cheikh Diallo voilà. Voilà, en tout cas, bah, euh, merci, merci à tout le monde, merci au public, euh, à la fanbase de Karma. Karma a vraiment été porté par sa, par sa fanbase. Un grand merci en fait au casting. et Thian et Thian euh, aussi tamit y a des séquences yi nga xamante ni ci dernier épisode. exactement ci laa doon ñëw ouais exactement. Thian na joué waat jaaro bi jox ma ma nekk jaaro ah <laughs> bëgg naa loolu daal affaire doxaan yi quoi. Voilà, j'aime bien. Euh, voilà, merci à, à, tout ce beau monde et merci justement à cette deuxième équipe-là qui avait été dirigée par Tian. Ils ont beaucoup aidé, surtout petit dernier épisode B. C'était chaud, on l'a tourné voilà. en 4 jours express. 4 jours on sans arrêt. Pas, on n'a pas jours de fermé l'œil. Et franchement, on ne serait pas arrivé sans cette deuxième mm -hmm. équipe-là. Et euh, bon, merci à mon équipe, au casting, et merci à Lamine, merci à... J'ai été interviewé par Dakar Buzz le jour de votre euh, dernier épisode. Mm -hmm. J'ai dit quelque chose. Je le répète ici devant tous les quelqu'un mondial. J'ai dit aujourd'hui, le cinéma sénégalais peut porter la destination du Sénégal. Madame Sounou li ñuy wane. Mhm. dafay tax ñeneen ñi dëkkul ci réew mi xam mhm. ñun nan la ñu mel. Mhm. xam ñun nan la ñuy dundee. xam ñun lan la ñu am lu baax lu ñu mën a proposer au monde entier. xam fan la ñu toll ci suñu wàllu développement. bu fekkee cinéma da nga cee jublu def buzz mbaa attirer sponsor yi pour benn cinquante mille booy am yaa ngi yàq deru réewu lëmm te loolu ça ne sa pay paye cher sa se paye cash. parce que nit ñi dofuñu te moomuñu seen làmmiñ denc ko ci poche yi en général les gens me disent waaye ouais, qu'est-ce que tu as contre la série euh... infidèle infidèle j'ai dit je n'ai rien contre la série infidèle c'est des sénégalais qui y jouent mais dafa am loo xam ne du ay ma du ay teggin et ça ne ressemble pas à nos valeurs culturelles te dafa bokkul ci doxalinu Sénégal boo nekkee ndaw da ngay sóor ne ëllëg dana yegg si nga nekk mag ce que je veux dire mooy nasaraan si nga xam ne sax gëmuñ diine l'islam bokkuñu ak ñun ay worma léeg-léeg dañ lay wan benn xale bu góor wan la benn xale bu jigéen ñu nekk ci benn boîte de nuit ñoom ñaar ñu ànd dugg ci oto ñu wan la appartement bi ñoom ñaar ñu koy ubbi wan la benn soutien-gorge benn dàll bu weng ak palanteer def noir xel du jariñ lu dul xalaat le lendemain ñu wan la ndaw si mu tëdd mel na kuy door a yeewu egguñu ci acte bi pour wax leen ne ces deux personnes ont déjà fait waaye dafa am loo xam ne ay teggin ak ay mën naa tax nit ñi war koo mën a tëb surtout ci dëkk bu mel ne Sénégal nga xam ne booy seetaan télé da toog sa jabar toog sa yaay toog sa papa toog sa bàjjan yow mi borom kër gi sax sa yaay danaa demal nga indil ma ndox fee ci ndaal yi nga jug ndax ay valeur yu ñu am donc bi ñuy nekk ci cinéma xamee loolu daf ñuy permettre ñoom ñu mën a jaay destination Sénégal ci ay worma ak ay teggin te nit ñi dinañ xam ne ce pays la est un pays très pudique même s'ils font ce que tout le monde euh, ce que tout le monde est en train de rek permettre man ma man ne ah waa waa Sénégal di naw naa leen li ñëpp di def ñu ngi koy def waaye dañ cee boole teggin te loolu vous êtes les seuls à pouvoir nous vendre donc ñu ngi koy dénkaat mboolem réalisateur bu toog ci ginnaaw ay euh, écran di juger ban plan lay switché yenn scènes yu obscènes yi pour def buzz bu mu tax ñu koy dugal même bu fekkee ça fait partie de la dure réalité de ce pays nañu xool li ñuy tànn waay rikk waay on n'est pas méchant mais on voudrait que li ñuy wane ci suñu réew mu nekk lu exemplaire j'espère que vous êtes euh, d'accord avec eh, eh, moi. il manque des applaudissements mais tàccu leen ko. émission bi jeex na Zé jugal ñu. Euh, Pape Sidi très rapidement. <laughs> Euh, on a une vidéo Pape Sidi. Uh-huh. mais vidéo bonus la. non non non non non non gaaw la. Zé ak waaw gaaw vidéo bu gaaw la. gaaw Zé mooy ñëw de Grégoire vidéo bonus bi on termine en beauté. Zé moo war a ñëw de Grégoire soo ko dugalee nag yow yaay paye léppoo kase. faale wu la sax gën a waar faale wu la Lamine yaa fekk nit ñi di nelaw nga leen di filmé. c'est avec la complicité de Diafana. Lamine dafa fekk nit ñi di nelaw nga leen di filmé moo jël vidéo bi. Zé Aïcha on y va. avant de commencer laisse-moi saluer euh, ma mère. ak euh, képp koo xamante ne nii yaa ngi. je te laisse pas. yaa ngi dëkk Tiwaawan di nuyu aussi sama papa ak waa Kër Momar Sarr yëpp maa ngi leen di béggee bu baax a baax Pape la fa passé dama indi euh, xaj bi ci taxi bi quoi. Mhm. mais jusque benn boobi la xaj bi tudd quoi tey jii nii bi ma indi nom bi moo changé au lieu de boobi maa ngi jàdd wala boobi maa ngi yéeg doo daan bii fils maa ngi yox la fils maa ngi yéeg doo daan. Grégoire doom day bu baaxee comme d'habitude nga balancé. slow slow slow ci kaw déggu la de. ah déggu de déggu de mi ngi ah, tàng de mi ngi tàng de température baa ngi jóg. gis maa yegg doo daan. dégg na ma ah? waaw da ngay ñaata del wax couleur yére yi. fis maa ngi yegg doo daan. mais del wax couleur yére yi ñi gay romb tamit da ci baax. bu zone maa ngi yor fis maa ngi romb couleur bu zone ah. yee gars yi groupe bu nit nga romb. maa bu nit ah fis. Ah, saa yi day concentré wooy yaa ngi romb ay nit rek di bàyyi. fis maa ngi romb ci bopp bi day dox de. fis maa ngi romb ah. camion lii lan la. fis maa ngi romb camion ah conteneur. tout droit tout droit. waaw. after we come after we come we go return return ngeen ñu see. fis maa ngi yokk noo daan maa ngi yokk machine ah. ah. ma ne fis maa ngi yegg noo daan ah. waaw lii lan la à droite lii nii lan la. lan fis ay briques la. maa ngi romb ay briques ah. droite droite droite droite droite. bien waaw we go fii jada kuy sonné noonu yaay dodee. tàggu waaw téléphone bi la de message la. nee ko fils maa ngi recevoir maa ngi recevoir message ah. yox c'est maa ngi yox ah. wala ba tourné. droite. maa ngi tourné droite ah fils. maa ngi romb Massi ah. <laughs> Niang. vous mourrez vous irez en enfer non je te jure ah. vous mourrez vous irez en enfer keroog c'était Bobby. pour les gens qui n'ont pas compris je vous explique le concept de ces prankers maanaam ñii dañu def ay caméra cachée dañuy jël benn taxi fay ko ne ko yóbbu ñu bërëb sàngam waaye xaj bi dafa am kayitu dof mais looy def rek booy dugal vitesse boo yéeg doo daan booy jàdd da nga war a tàggu xaj bi keroog boobu la tudd tey fils la tudd bàyyi leen ni ngeen def da ngeen dem safara de <laughs> waa ji moom am jot ba de naan fils maa ngi romb ko sol lu zone <laughs> en tout cas y a rien d'éducatif dans ce que vous faites mais ça nous fait rire on adore léegi nga dégg Sénégal nag tam booy li ngeen di def nii baaxul ñe ñe ñe ñe mais ça se passe comme ça partout dans le monde les gens ils font juste des pranks pour voir la réaction des autres ça fait partie du, du de, de la vie hein? merci beaucoup en tout cas Zé. balaa ñuy terminer ñu xool euh, PND devant ma caméra avec la complicité de Grégoire allez on y va. doy waar la question de jaar jàll jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi doy waar la question de jaar jàll jom ak fit mooy tax doon di jaal mission bi doy waar la question de jaar jàll jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi doy waar la question de jaar jàll. ndeysaan xoola kooku prise la jaay noonu ñetti téeméer. dóor waar la dañuy for ay affaire ci àll bi recycler ko toog yóbbu ko ci bërëb bu ñu tuddee xojo xojo on les voit on ne se rend pas compte que ces gens-là sont en train de faire des de la récup li àdduna bi yëpp di yuuxu non on doit recycler ay kubéeru butéel ay loo sànni yow soxlaatoo ko ñoom la ñuy dem si mbalit yi si yenn zone yi nga xam ne foofu la ñuy sànni suñu ordures yi ñu recycler ko denc ko parce que am na keneen ko koy soxla comme rallonge bi xam naa dafa sote rek borom jël ko sànni ñu récupérer ko defaraat ko nice nice salaat ko ba pare ñëw jaaywaat ko mu amaat une seconde vie et ça ça a été filmé par PND devant caméra merci beaucoup le grand réalisateur PND qui réalise pas mal de vidéoclips dans l'univers du hip-hop et qui prend de temps à autre sa caméra pour nous montrer des choses qui se passent dans la vie réelle il est là tous les mardis et tous les vendredis dans l'émission le Good Morning en quelques secondes mu jommal la wan yoo xam ne tu te dis mu ngi nice jërëjëf jërëjëf Pape di euh, nuyu itam euh, équipe euh, équipe bi nga xamante ni ñoo ñu accompagner pour ñu tourner caméra ca équipe nationale. no pas équipe nationale Pape bu équipe nationale joué tey rek nga ne équipe nationale tamit yow it bàyyi ma saluer sama équipe équipe tournage laay saluer nii baax na. waaw maa ngi bëggee équipe bi yëpp caméra cachée bi ñu ñuy accompagner Amidou Mansour Patricia Aïcha yi Toumani Yaan maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen wax waaw. Séeri nday Pertaw amuñu seen fay mi ngi noonu waa an sama kii boobu soxna soosu. Séeri Ndeye Pertaw ngay am foofu. fas naa la wax bi ngay mbëkki rido keroog bi ngay mbëkki rido man mardi. non non non non non Grégoire laisse-moi gérer ça laisse-moi gérer may ma may ma may ma. man mbëkk rido man. bi ngay dem mbëkk rido. mais loolu bi ñu tuddee aar benn ngay mbëkk rido. Ah. man de nekkatoo daa ko ma romb ñuy seet. ñu ngi terminé ñu ngi terminé ñu bi ngay bi ngay man damaa wàcc am ku ma gis ñu dem sëriñ bi Seras. El Hadj merci d'être venu on te dit merci beaucoup. Grégoire may ñu une minute ñu terminer lii ngay parax paraxi nii. <laughs> Merci d'être venu sur le plateau. On est très content à chaque fois de te recevoir et euh, félicitations pour le travail remarquable okay. que vous êtes en train de faire. Lamine Ba et moi avons été habillés par un jeune du nom de Pape Sidi Ba. sama turandoo lañ ko tuddee. tak tak. mu yàq sama sama maam nii lañ tudd ki ñu ma tuddee dëggantaan Ndiaye Sidi Ba Pape Sidi Ba pour le maillot vous pouvez le joindre au 77 514 40 40 77 514 40 40 Lamine merci. Pape Sidi merci beaucoup et merci à Pape Sidi. mi ngi nekk Liberté 5. tey waaw plan boobu ngeen dugal lan la maillot yi merci beaucoup grand Pape Sidi. dugalaatal seen chaîne télé bu njëkk ci wàllu La 2STV nous informe de ce qui se passe dans le monde. Quoi de plus instructif qu'un bon journal télévisé? De la pandémie, président chinoise. Ou une émission éducative. Bienvenue et bon réveil. Good